ma seeti baay Merci. Bon appétit, mon cœur. Vas-y. lii neex na trop waaye ma sukk raam jéggalu la moo ma bëgg na ndax nag dama la tooñ ndax dama laa tuumaal te tuumaal gor du ko def moromu goro ma nga baal ma xam naa la li ngay def yëpp c'est pour mettre ma à l'aise xam nga ni dama ruus trop nga xam nga ni man nitu kersa laa kontaan naa nag vraiment mais man ak yow àq amu ci xam naa ni sa mbëggeel la jiital xam naa ne dangaa fiir te ku bëgg fiir. bébé liñ la wax kuñ ko waxoon ku ne nga mer man nii bu doon maa nekk sa place doo doon donc je te comprends parfaitement ay baalu ay suq ay raam yooyu yëpp jaru ko dama bëgg ñu fàtte loolu mu nekk suñu ginnaaw ñu xool li nekk suñu kanam li ma lay ñaan nag mooy. beneen yoon yu mel nii bu amatee parce que mën na amaat seytaane moom mi ngi fii danga may woo waxtaan ak man bu dee damaa juum damay baalu man rëyuma loolu bu dee damaa tooñ dama lay baalu ñu avancé soo ma meree damay perte soo ma meree damay ñàkk ndax danga maa jikk yaay sama wéeru wéeruwaay wax naa la ko plusieurs fois bébé soxna yaay la te yaay gàllaaj la ci doom gis nga sama 49 pour cent yi ñuy wax nii yëpp. 49 pour cent Cheikh Omar jënd na ko Cheikh Omar jënd ko su ma la ñàkkee laa jàpp na ñàkk naa 49 pour cent yi su ma la amee dafay mel ni am naa les 49 pour cent am naa les 100 pour cent la prochaine fois nañ bañ di jotee. bébé seetlu foo meree sama diggante ak yow sama affaire yàqu. waroo mer s'il del waxtaan ak man. dama bëgg nga xam ne dama laa bëgg ba sax damay jaxasoo te lu ma bett ci yow dafa may mën ndax pour man maîtriser naa sa lépp di la baalu rek di la wax ni ma la bëggee duma la ko waxaat xam nga ko te xam naa ne tuuti rek nga ci xam mais li ma ci yëg man ak yàlla rek ko xam. baal ma ax je te promets que ni dootul amaat ndax confiance mooy base relation. Mhm. waaye communication tamit ci la dama bëgg ngay communiquer ak man footoo comme ni nga koy defee ni nga yokk ko d'accord. d'accord mais euh, il faut que ñu dem ci sa sëriñ bi c'est vrai parce que il faut ñu muslu ci suñuy noonu. kon xam nga ne da nga fa war a dem. dama fa allah d'accord allez bon appétit. loolee. dama laa nopp rek. tu sais que je t'aime. moi aussi je t'aime tu m'aimes je sais. waaw. waxaat man moo ma dàqal bi. je t'aime je t'aime je t'aime je documenté. Ah. li nga wax yëpp na xam nga lu ma ci gën a métti. moo daane sa entreprise. <laughs> damaa jiw. daa jiw. man sax moo ko xam pare damaa tiit. barke yàlla. tiit naa tuuti rek. ak yow àq amu ci xam naa ne sa mbëggeel la jiital xam naa ne danga fiir te ku bëgg fiir bébé liñ la wax kuñ ko waxoon ku ne nga mer man nii bu doon maa nekk sa place doo doon donc je te comprends parfaitement ay baalu ay suq ay raam yooyu yëpp jaru ko dama bëgg ñu fàtte loolu mu nekk suñu ginnaaw ñu xool li nekk suñu kanam li ma lay ñaan nag mooy beneen yoon yu mel nii bu amatee parce que mën na amaat seytaane moom mi ngi fii dañ may woo waxtaan ak man bu dee damaa juum damay baalu man rëyuma loolu bu dee damaa tooñ dama lay baalu ñu avancé soo ma meree damay perte soo ma meree damay ñàkk ndax danga maa jikk yaay sama wéeruwaay wax naa la ko plusieurs fois bébé soxna yaay la te yaay gàllaaj la ci doom gis nga sama 49 pour cent yi ñuy wax nii yëpp 49 pour cent Cheikh Omar jënd na ko Cheikh Omar jënd na ko su ma la ñàkkee laa jàpp na ñàkk naa 49 pour cent yi mais su ma la amee dafay mel ni am naa les 49 pour cent am naa les 100 pour cent la fois nañ bañ di jotee. seetlu foo meree sama diggante ak yow sama affaire yàqu waroo meer s'il te del waxtaan ak man. dama bëgg nga xam ne dama laa bëgg ba sax damay jaxasoo. te lu ma bett ci yow daf may mën ndax pour man eh toogal wax lenn laa la bëgg a xamal booy man xam naa sa passé dóorkat nga non fii nga jël ay artistes ne da nga leen yóbbu Gambie arrivé à Kaolack le paan nga ne bees yaa bi sa tonton la sur le champ nga taxaw def sa téléphone allo tonton demandoo nag artistes yi mais donc oto bi dafa paan amuñu fu ñu tëdd sa tonton na la ñaata ñu nga ne 10 ne 24 personnes sa tonton ba nga ne ko 24 personnes la coupé téléphone xam ne da koo yeb parce que amoo tonton PCA. ñooñu ba léegi ñu ngi toog di leen xaar pour nga jël si booy Kaolack nga dëkk je te connais des ans Kaolack waa. j'en suis fier. xoolal waaw non foofu dafa sori. tu es à Dakar Kilimban lay boo moytuwul nag bu ma la yow moo la pointé rek dootoo fay ko. c'est ridicule. non dama xam naa la Kaolack nga dëkk nag booy. kaw la gën dëkk góorgóorlu fii neex la de. eh oui. excuse yow est-ce que xam nga lan mooy pointage ah. d'accord dama ne la mooy dama lay naa la ñaari yoon merci beaucoup ciao ciao bébé merci. fiston. Ça m'a fait du bien ma dox ak yow doxantu tàllal tànk yi tuuti ñu waxtaan. Euh, ma profito wax la ni j'ai reçu des menaces de mort. des menaces. waaw. venant de Cheikh Oumar certainement. venant lui. sama kër la ñëw il a osé ñëw toog wax na lu ko neex waaye dégg na ma il m'a menacé dem. d'accord. Et... tu <laughs>

gis nga Jojo mooy Jojo bi nekk Sénégal Jojo bi toppatoo soxnaam waaye man ak Cheikh Oumar Alex Mbaye laa andi ma nga xam ne xamoo ko woon démb ak barki démb kooku ma mën a jàqaloog Cheikh Oumar defantak moom ba mu saf sàpp jamais jamais et que bul loolu parce que ay souvenirs yu bon la may fàttali man je n'aime pas Alex Mbaye je ne veux plus voir Alex Mbaye man Jojo laa bëgg Jojo mi nga xam ne day toppatoo jabaram nekk exemple ci ñëpp Jojo mi nga xam ne moo bëgg ay waajuram bëgg ay nit di dimbali waate pacifique du boobu laa bëgg parce que boobu la àdduna bëgg boobu la réew soxla bul waxati loolu. pourquoi Cheikh Oumar menacé la de mort lan la lan nga séq ak moom. Euh, li tax mu menacé ma de mort dama xam li may liggéey ma waaxu ba kër ndayam wax ko ko. waaw wax ko yaayam. lan lay Cheikh Oumar di liggéey. fan la jëlee xaalisam. je dis day jaay nit. quoi waaw. ay jeunes lay génn réew mi jaay leen ñeneen kenn dootu leen teg bët xeebatul dara xeebul jeune xeebul jeune fille xeebul ba ci xale yu ndaw yi sax léegi mi ngi leen di ramasse di leen jaay. ah ba ci village bi moom la sa papa ja Zora. kan da nga koo gisati moom moo koy coordonné depuis extérieur Tibron Lamine Ndiaye Tibron bi ma ci gën a metti mooy ñing mooy nax waa village ba moom ñoom ñett ñooñu. ñu lëkkaloog Cheikh Omar di def jëf ju bon yooyu. gënal ci loolu. Cheikh Omar il est très bien entouré alors. surtout Pérez Dora xam naa ko xam naa lu mu capable. fi mu taxaw ba mën menacé de mort ca ñooñu la yaakaar particulièrement Pérez Dora mu rey la du dara ci moom xam naa ko bu baax a baax a baax. père. j'ai peur pour toi su ma sañoon nga génne ci loolu per man yow rek laa am ak sama soxna Sidi Sumbulu ñi ma yaakaarul ñëpp dañ maa wor su ma la ñàkkee tey fan laa jëm per sama bët bu xonkee ci yow laay ñëw samay rongoñ buy tuuru ci yow laay ñëw nga feral ko su ma jaaxle ci sama adduna mbaa ma jaaxle ci sama sëy yaay ko koy stabiliser aw ma yaakaar ci kenn ku dul yow yow su ma la amul woon fan laa jëm donc su ma la ñàkkee lan laay def xam naa ñi ngay wax xam naa lu ñu capable ak lu ñu capable raison de plus raison de plus duma la bàyyi man duma la ñàkk démb di la jooy ba yàlla tegaat la sama loxo ma lay bàyyi ñu lay faagaagal di la bàyyi ñu lay néewal doole bàyyi ci devoiram la mu gunge doom ci liggéeyam d'ailleurs nee naa ko 49 pour cent yi na ko delloo wala ma dénoncé ko. c'est trop facile c'est trop facile bàyyi ko ak 49 pour cent fi ma jëm ak moom amul ndox bàyyi ko ak 49 pour cent bul ko menacé bul ko tegal benn obligation non bàyyi ma ak Cheikh Omar ma jàpp ko làmmee dans le sac génnal ci lii. kon maak yow a ciy demandoo damaa bëggoon nga toppatoo sa jabar ak sa liggéey bàyyi maak Cheikh Omar comme que insisté nga maak yow a koy seq rek mais man du ma dellu gannaaw. mais j'ai pour toi. man je n'ai pas peur de Cheikh Omar. j'ai peur pour toi. naa yow yaay rakkam kii mooy baayam man mii maay ndeyam te nit bu demee ba dugg ci lu neexul yàlla neexul yonent bi neexul àddina ay mbokkam ñoo ko ca mën a génne te buñ ko seetaanee dina sànku te kon ñu nit dinañ ci am part de responsabilité seexu naa ngi ruy ruy woo xam ne bis bu ko naanee dina fot te ñun ñii ruy ba duñu romb kon nañ ko wàññi balaa muy trop tard xaalis bi seexu naa am 41 pour cent yi mu jënd entreprise bee yow mii fa ngay xëy li ko ko may du lenn mbiru xale yi muy jëlee dëkk ba di leen yóbbu bitim réew di leen fa jaay ñu def leen ay esclave def leen ay caga yóbbu leen ci plantation cacao yi di leen fa maltraité lii mooy li si ça c'est fii yaay arrêteel ah. mais yéen ñi dinañ leen topp enquête leen xool ba xam est-ce que du dara mais li ngeen yuuxu ni lan la yow li ngay wax lu la ci wóor mais yaay yow da nga jur ay doom yoo xam ni bëggoon ñu stable di liggéey tekki di faj ay buumu gàcce ban ruy lañ fi naan ban ruy lañ fi ruy bi bàyyi ko mu naan ko mën na koo naan moi j'ai travaillé que trois jours xool ni ma mel ngeen bëgg ma ko yàqal laa duma ko nangu duma ko nangu de gauche du ma ko nangu de droite arrêté leen mu jeex. Mbaye da ngaa war a dimbale seexu naa. lu ma koy dimbalee. ndax yow xolu paftan nga yor. bàyyi ma nga naan ma ay ruy bu ñu fiy naan ay ruy yow ruy bi naanoo suukaroo ko xoromoo mu am kaani seexu naa dina ko naan man dinaa ko naan parce que seexu naa gaynde la te jàmbaar la man duma fi toog ah. fii la sama jabar dem kenn lijjantiwu ma mi ngi nii di ma xool les yeux doux bëgg ma koy waat pour mu ñëw parce que gis nga ma dama firi happiness di dund ma dëgg bal bi ngeen bëgg ma ko yàqal du ma ko def. arrêté leen. mbay xaalis bi moo la tax a mais xaalis bi moo tere ñëpp di xàppi. ay boo xamoon xaalis bi. xaalis bi lan. ay yow ay yow bu séddante jóg yow amoo problème man maa am problème ban waaw man maa am problème ndax man dina defe ni maa ko wax Guèye ba ngeen yegg ko sax maa ko wax Guèye waaye Guèye daf maa trahir man ak moom dong yàlla la woon waxul loolu pour mu ñëw di la ko wax ba seetlu naa di ko yëg man maa am problème man ku yeboo rek ma ban. góor oh, ah. kon yow xam nga li Cheikhu naa di liggéey. man waaw mukk mais jotaay bii ba fekk sax bu ma xamul nii lay demee xaw ma ko de. góor gi nga taxaw ne wax nga ko góor gu mag gi. moom ko wax. Ah, damaa dégg ñuy wax. mais man xaw ma ko. xamoo ko de toute façon man bàyyiwuma gauche bàyyiwuma droite damay liggéey. damay liggéey et puis leen wax ji ah. bàyyi coow li damay liggéey. kan mooy bàyyi coow liggéey. mbay xaas bi boo ko lekkee du baax si mbay du la jikk. lu la ma jëkk. mbay tu es en train de jouer avec le feu. moo baax. yaay faw nga takk jëm féet jëm ca kaw muy lumière bàyyi leen coow li. rek mooy def nii bu mag ñëwee fan laa jëm ah ñaareel leen ba rek ba. Juliana, toujours de plus en plus belle. dama bëgg nga wax ma yow li tax nga ñëw fi. Euh, mais est-ce boo feccewul sa kanam gi dinaa la ñeme wax li ma lay doyee yow reetaan dafa bokk ci sa charme charme jigéen. mooy ci reetaan si xoolinam parce que kanam bokkul ci yow. ki yow la foogoon naa ne ci àdduna yow doomu mës a woowaat. dafa am proposition bu ma la bëgg a defal parce que li may liggéey daanaka loolu moo ci manqué soo bëggee nga wax ma fa say mbokk nekk mooy yónnee jabar laa bëgg. yow da nga fàtte diggante bi fàtte xaju fi de yow da fàtte li ma daj ndax yow sama carrière yàqu sama cabinet dama ko tëj amatuma liggéey ma waatoon brisé sama serment lépp ndax yow ko toog fi tey di ma koy wax tàkk fàtte xaju fi ndax xalaatoo ne erreur yooyu laa nekk di réparé moo tax ma bëgg laa jël jabar moomaa yaa ma mën a dimbali parce que Soumboulou mystiquement mi ngi sama kaw. xoolal yow pare go. mais pare go ma cest mi ngi may liggéey damay tëdd di ko gént. jigéen booy gént daa fekk sa mbëggeel jeexagul ci boobu. moom moo fi deseel mbëggeel bëgg kaa jël si te duma ko nangu. accepte ma taq la yóbbu la fu góor mësta yóbbu jigéen def ci yow lu rëy man ñooñ dama leen dépassé Jojo fi muy jënd ay yére jënd naa ko go fashion maa ko moom. fa yóbbu tu es d'accord loolu yow la rek. tegoo dara sama loxo benn yoon nag laa joxe chance. sama kàddu gi si tegoo man caaxaan taxumaa jox. wéet ndax mën y naka la jigéen bu mel ne yow rafet di mel ne pom mën a toogee te kenn gungewu ko. parfois damay am envie génn man kese. kum fanaan nag ak ku bëgg ko wéttali tëjal bunt bi di leen boole dama nekk wut jabar soo bëggee ma takk la si <laughs> am naa xaalis rafet naa si boo jantal naa te gaaw naa man samay supporter lu ñu gis match nul qu'est-ce que tu en penses désolée parce que naka ngay gisee nit ki tey xamoo ko sax nga bëgg koo takk. ñu ngi si mois de février te la 14 février ci mois bii la nekk donc tout est possible du hasard gis bi ma la gis. regarde-moi. sëñ bi sant ba Njaay la Njaay Njaay Ndaw def tam Ndaw Ndaw la Ndaw mën na si ba jàmm ngeen alhamdulilah bisimilah naka waa kër ga ñu sant bu leen ci yoon bi rek sant bu baax alhamdulilah sëñ sama jëkkër mu ngi nii woon na lool pour ma andi ko fii waaye nag moom day sama xarit ba lu ma ko ñaan rek lu mu metti metti dina ma fekk si moo waral suñu teewaay tey te it ma gëm ne di tax mu jafe woon li ñu fiy jëlee dafa nar a baax moo tax mu xawoon jafe tuuti ngir li ma la waxoon lépp moo tax ñu ñëw fi man ak moom. dox nga tànk yu rafet comme ni ñu ko defee woon keroog rek maa ngi lay nuyu bu baax sëñ bi euh, di wax la ma ko waxoon keroog rek ne ko jéego yi nga dox euh, dafa am solo ndax lislaam nangu na ko. moo tax keroog bi mu waxee ba yeggal ma ne ko noo mën a def fexeel ba nga ànd ak sa boroom kër ndax li ko waral mooy lu baax ngay dox te lu baax ku koy dox kenn du ko nëbb waaw te dafa am loo xam ne boo koy sàkku ngir moo gën a am doole rawatina ngay soxna te am borom kër nga déggoo ci sa borom kër moo tax ñu ne woon ah boo teewee rek lépp dana gën a leer incha allah. ma naw la ci dëggu gi te li tax ma gën laa jàpp sax li nga ko laaj sama teewaay mën na la cee bañ a fekk jàpp naa ne kilifa nga jàpp naa ne bëgguloo ëllëg ñu ne yaa fi waxoon walla yaa fi defoon moo tax nga laaj man ma teew kilifa du wax lu waxuwul du def lu defuwul jàpp naa la ko ndaw moom nag du jabar soxna la lépp lu nga xam ni soxna walla jigéen war na ko féeta ak góor fees na ko dell gërëm naa ko sant naa ko tiituma ci ragaluma ko wax fenn ndax moo ko liggéey ci sama ëtt di ñaan yàlla doomam ji nga xam ne mooy suñu taaw li mu liggéey sama ëtt yàlla na ko doomam ji fay kontaan naa ci moom loolu kilifa gi man moom rek laa am barki démboo njaay tuuti ñu séparé wu man ak moom taxaw na ñaan ma baat te xamoon naa du moom seytaane la woon noonu la woon ñoo ma sonal dëgg la gëmuma ko ndax yaroo ci waaye nag euh, lu ñëpp wax mooy dëkk ginnaaw boo bëriwul ñu bëri daanu sa kaw damay bëri na ñëpp ku ma mësal ci noonu laa soxla ku ma mësal ci cat laa soxla ku ma mësal ci seytaane laa soxla ku ma aar ci làmmiñ musiba làq ma ba fu yàq yeggul lii rek laa wër am yaakaar ci yow nag moo tax ñu ñëw fi keroog rek sama bunt bureau wala jarul ma koy wax waaw dañ faa toj ay nen yu ñu bind ay ay ay ay ay ay ay affaire donc tiital na ma daal. dëgg la dégg naa la bu baax euh, lii rek lañ soxla woon te diggu naa baax sa ay soxla noonu nag li ma la ciy njëkk a wax yenent bi moo gën ñëpp te moo ko ëppale woon te bokk na ci màndarga yi ñuy jàppe ne nit. dana yéeg ci wàllu àdduna yéeg it yàlla mooy ci bëri gi ngay bëri ay noonu daan naa dégg it mu baax di wax ne oto buy klaxonné moroomu otoom ba ca kanam moo tax muy klaxonné kon ñi lay topp la noonu xëy leen a raw te da leen a gën it jikko li mu bëggoon a xam kay ndax di nga takk ndax di nga sang ndax dinga nga lu jëm ci téere ak sangu ak suuru. sëñ hmm. man maa ngi ci ginnaawam dina takk dina sangu dina suuru parce que dinaa ko defee nu mu ko waree ñun kay lu ñuy ñaan rek mooy dellu ci suñu mbég. loolu sax moom dañ la koy laaj mu bokkit ci liñ la war a jox rek waaye baatin ba dëgg moom fi ñu toog lañuy toog di li ñuy def li ñuy def. ndax kurus moo mën lépp. Mm-hmm. ndax benn mag daan na wax naan. borom kurus léeg-léeg mu tas ak borom baatin sax duma ko ba yëg ci kawam euh, loolu liñ ci jubloo wax mooy ne la ñuy lay gën a defal dëgg fa ñu toog lañ koy toog di ko def te incha allah li ma la wax rek ci kàttanu yàlla dalal sa bu baax te nga bu baax te a jàpp sa soxna bu baax. incha allah euh, li ma lay ñaan daal yow sax toogal tey ba reer ba noppi. Hmm. incha allah li ñu war a tàmbali ñu tàmbali ko bis na ko tey. xam nga fu ñu toll nii da ngaa dalal sama xel won nga ne ma ne am naa wéeruwaay ba kenn du ma mën a bu max su ma sañoon nag damay am sa numéro téléphone di la woo personnellement parce que bëgguma madame di jaar ci moom toujours boo <laughs> fi andi am na yoo xam ne jigéen war ko ko yegg <laughs> waaw ba ma yoroon sa numéro tamit dina ma arrangé lool. waaw mooy 77. 646. 20 05 waaw. Tu devrais avoir peur. Cher Omar, il est dangereux. sa commerçant bi ñëwoon na fi. ki la jaay doomam bàyyi fi fi ñu naan ko Alioune dara Diagne Golbert ñëw na fi de yee yaay man damaa defan man sax damaa jommit ndax damaa jékki-jékki ñu toog sama saal mel ni kuus naa man la bàyyi fi fi damaa ñëwoon di la doon la ko dénk si dootu ko doole de dénkaane mi ci laa sonn la ma ko yàq dootu ko fàtte ma ko maa téyewul du jaay na la ba ba mu ñëw waa léegi kay na ko bàyyi nag mu toog wageeg man comme mën na ko walla du koo bëgg a fii lañ may fekk toroxal naa ko ba mu ne tot te maa tey nga ne Alioune

yaa may xool ma lay xool waatal ma ci yàlla ni Golbert jaa ñëw na fi nga toroxal ko man weesu naa fu ma lay fene weesu naa fu may jàkkaar la yow di la wax loo xam ne nekkul ci man pour lan danga ma koo jaral toroxal nga jullit toroxal nga kilifa toroxal nga ku gëm aada ku bàyyiwul cosaanam ku yërëm doomu aadama ku respecté doomu aadama ku jox yàlla cëram dootoo ko def mukk ci àdduna Binta ngeeg sa jëkkër la te ñu may ma la ci falastas yàlla ak sunna Muhammad sa boroom kër génn àdduna ba ma ak sa ñaar ñii ma téye leen na ma leen war a téye téye la maa ngi waat ci yàlla billaahi wallaahi taalaahi binta maa ngi kitaabu ci yàlla sunu boroom yal na ma yàlla àtte ak yow amiin yaa rabbi na doon tey man na ngeen laajte lii ñaa laajte nga xam ne ngeen xam ku ci jeng yow xamoo ñuy jeng ci ñaari jabar ëllëg bu ñu jekkee yomet am dañuy nii lañuy def ca jëm alors Bosia hey dis-moi lan moo xew tax nga sa ngéem wala nga mel na ku jaaxle. Cheikhouna bàyyil Jojo Cheikhouna bàyyil Jojo. mais je rêve quoi lan ma war a mën a tax ma bàyyi Jojo. il est dangereux te avoué naa ci kanamam que yow laa liggéeyal et que yaa ma wax waxu tâche bi ba mu enregistré ko Cheikhouna bàyyil Jojo ngir yàlla. dangaa dof wala lan mais naka laa la mën a yónnee nga may trahir man ba nga fi jógee lan laa la waxoon man ragal du liggéey ak man saa yi ma amee confiance ci kenn rek à li laa ci am quoi déception lu tax te li ngeen may liggéeyal ay miettes la apporté wu ma dara bu ma yëpp daf ma torturé wan ma beneen facette boo xam ni man mënuma woon xalaat ni que sax doomu aadama am na facette boobu ngir yàlla bàyyil Jojo Cheikhouna moo la gën a dangereux moo la gën a capable man personnellement pare naa ci ay waxu Jojo bëggatuma gis Jojo bëggatuma am affaire ak moom nii jabaram man comme Jojo daf ma njëkk ci yow jël sa fit yaa ma yëpp mais Jojo yëbbu yow laay yónni nga may trahir mais Jojo bu ma ko yónni woon day dem par force man doo ma ah. du yaay tax ma bàyyi ko ndaw nga ci pour ma bàyyi Jojo et puis bu répété kàddu googu mu duggaat sama nopp Jojo dafa tàng dafa tàq Jojo boobu laa soxla buy tàq bu tàng bu prêt pour affronter am na beneen mission bu ma lay sant ci biir entreprise bi ndax tu vas pour moi. bul àggali xalaatuma ko xalaatuma ko man fu Jojo jaar du ma fa jaar. man maay wax. xalaatuma ko. da ngaa ragal je te comprends da ngaa tiit daal ba dal te gré ou de force tu pour moi. ma rêve parce que xalaatuma ko sama àdduna et puis maa ngi dem.